Ousmane dafa tiit. te sénégalais yi xam nañ ne kii dafa tiit Ousmane dafa wax ba dugg ci teen. Ah duggal boppam ci kàmb gis nga nit. Hmm. su ma jógoon tey di la xe di xeex seeg yow. Hmm. mais yow duma la tàggu. man dama naan jamet sa kër. wan la ni man li may def dama ko ñemee. Ousmane bu ne lakk na xale yi génn manifester wu. yàq taal nit ñi duñu liggéey rek dana manifestation rek. man seen manifestation du manifestation rek yem ca. Hmm. yëngal nañu barki démb ci guddi taal nañu Kër Massar am na fu ñu doon taal xale yi. Ah waaw Ousmane dafa war a dal Ousmane la siis bi ñu ko woo dara xewut mi ngi mel ni ma toog tey jii sosal la. topp di la sosal bu yàggee te defoo ko di nga ma porte plainte lii la Sénégal mës a tëddee. alors aussi euh, ñu gis que ni à chaque fois Ousmane Sonko bu bëggee génn euh, wala mu bëgg am fu mu dem dañuy gis euh, ñu ñu ñu wàcc ay ay takk der ci tali bi ñu jàmmaarloog li nga xamante ni moom mooy askan wi est-ce que tey nekkul que ni loolu la bëgg xeex moom moo tax mu ne autorisation dañuy manifester ou sans autorisation dañuy manifester parce que moom gis nañ ñi à chaque fois même bu déposé li nga xamante ni moom mooy autorisation sax dañ naa ko doo doo doo. kenn du ko ko jox parce que doxut jàmm. ah bon doxut jàmm gis nga ñoom tey jii boo bëggoon autorisation marche boo demee dinañ la laaj lan ngay marche nga wax ko su fekkee du déranger askan wi man mi politikul man mi sama yoon newul ci politique ma war a xëy liggéeyi ma war a xëy lal sama taabal ma war a xëy dem ci marché bi daan sama doole jox sama njaboot nee naa la manifesta Ousmane Sonko toujours dafay rax. est-ce que nekkul policiers yi ñuy bàyyi ci kii. ma dafa woote combat mortel ñu bàyyi ko xale yi génn dee taal dëkk bi yàq dugg kër jàmbur yi yàq barki démb. waaw bañ ni ko doo manifeste Touba. mais dañoo am droit policiers ne ko doo manifester Touba Touba du manifester kaay. Ousmane ni by force. mais maman Ousmane Sonko est-ce que amul droit comme ni nga ko waxee. amu ko droit bu fekkoon ni day génn. manifeste ci jàmm. mais Ousmane ñi mu àndal ñooy woo xale ñi ne ci diaspora bi ne leen taal leen te bés bu ne ngeen gis ñu taal. bés bu mais maman yi mosu ñoo dégg Ousmane Sonko ne ne ne ngeen génn leen ñu taal dëkk bi. mais lan moo taal dëkk bi neex na. lan moo gën a metti génn leen su ma leen joxee ndigal ku dee sa ndey juraat mais fii si yéen a ngi dégg wala déggu leen gis nga réew mii bu amee guerre. <laughs> noo maman. bés bu amee ku dee sa yaay juraat ku dee sa yaay juraat. mais euh, alors xale yee ko wax mu génn ne. mais dafa euh, war a génn ci gémmiñam. mu dégg ne xale yi dégg naa ñu naan ku dee sa waay jur juraat maanaam euh, day wax ka ni loolu noonu du mus a am moom waxul ne ku dee sa yaay juraat xale yi ñoom ñooy wax. dama ni ku dee sa yaay juraat parce que luñ jox li nga xamante ndax mas ngaa dégg Senghor wax wa baat bu mel noonu. mas nga dégg Abdou Diouf wax baat bu mel noonu ndax mës nga gis sunu maam Ablaye Wade dàqoon a yëngal ñëpp mais mës nga dégg mu wax baat bu mel noonu am na lu xale yi di way yow magum jëmm mi bëgg réew mi warul génn ci sa gémmiñ mais est-ce que yaakaar loolu day alerter xale yi wax alerté wul kenn joxe leen seen kii nee nañ leen ku dee da nga ñàkk sa bakkan waxuñu benn dëgg génn leen man dem naa def sama testament ci ku bëgg a jël réew gis nga fiis dafa am des fois bu ñuy waxtaan dañu war a waxtaan ci fulla ci bëgg suñu réew mi pas bëgg Macky Sall kese pas bëgg sonk kese pas bëgg Coura Macky kese te doo waxal réew mi sonk na wàcc réew mi Sonko nañu bàyyi Sonko lan lay manifeste ci kàccal nit ñu di la woo bul ko kàccalati comme niñ def doomu aadama yépp bul fenati tëjuñu ko waxuñu ko dara bul fenati jox ko sursi comme ñëpp ah comme do Sonko du président Sonko du ministre mais mais sénégalais instant yi ñoom pour ñoom Ousmane Sonko moom mooy président de. mais ñi ngi def erreur bu mag. président Macky Sall mooy président république bi. yàlla def nag xéewal Sénégal am ko mooy ñu am ku dal. d'accord barke alxuraan bu ma doon président tey Sonko. non Sonko yóbbu naa ko nu mu seen yàgg na mu may ñëpp jàmm. ah bon barki alxuraanul karim parce que man jàmm sénégalais yi moo ma gënal sama jàmm moo ma gënal jàmm Sonko su moo ma gënal jàmm jàmm kenn dong la mooy am jàmm Sénégal am jàmm mooy président Macky Sall. d'accord alors aussi sànq maa ngi dégg nga ni euh, ku war a def euh, ku war a nekk njiitu réew amul droit nga ni euh, def naa sama testament mais alors moment dañ ko gisoon ci kaaw ki nga xamante ni moom mooy Khalifa Sall. Mhm. gis ko ci kaaw ki nga xamante ni moom mooy Karim Wade alors est-ce que nekkul Ousmane Sonko loolu lay xeex mu génn ne. bokkul gas nañ sama bakkan wala ma jël bakkanam. bokkul parce que même la. Khalifa Sall dafa taxaw gis nga senegaal il faut ñuy nangu dëgg bi man ku ma mere dama keer yow ku ma saaga damay fayu yow man kurama ku ma saaga ma fayu xalifa sàll moo génn man boobu politique gu mu ne dama defoon ni li fi nit ñi doon def man dama ñëw jaar ci seen tànk nit ñi lan lañ doon def sàcc ñi fa nekkoon dañ doon sàcc xaalis bi yow mu jooy. mu nangu sénégalais yi dañu fàtte loolu Karim Wade sénégalais yi ñoo ko xeex ba ci parti baayam wax naa ko ca ensemble ba ne leen da ngeen a fekk kenn dong laa xam ni moo bëgg Ablaye Wade bëgg Karim Wade maire Ware Sarr man nëbbuma li may wax mhm. xaw ma maire Ware Sarr damay dajeeg moom ensemble mais dafa dëggu yaakaaroon Ousmane Sonko ci lu mu nekk nii. Ousmane Sonko li dal Karim Wade. dal xalifa Sall bokkul. is totally different. parce que dañoo gis ne élection mi ngi waaj a ñëw. Euh, ñu mais Adji Sarr dafay Adji Sarr politikul. Adji Sarr li mu wax dafa leer ba may porte plainte Euh, euh, kii nii nu mu tuddati bugguma yàlla sax yàlla na dindi xelu Ousmane Sonko bi ci sama. Ousmane Sonko mënoo nekk Sénégal ah, may réer parce que intéressé wu ma. ah bon barke turam mi mu tilim mi mooy kotu yàlla bi iblis bi dajjaal bi. Oh, moom est-ce sonal. moom sonalul kenn. ndax yàgg na di eh, def lii mu def xam nga yàgg na ko tere ko yu demee noonu. yàgg na jiiñ tamit. yàgg na jiiñ ay Mamour Diallo ay ay Aline Sall mais man dunduma woon Ousmane Sonko musuma wax ci Ousmane sonk mais nga bëgg sama réew xam nga yow Sénégal ni mu toll yéen sénégalais dañu xeeb Sénégal golo gu jot déposé candidat.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 information yu leer Dakar yaa nga am info yu leer